Yeah. production dellu si na le 16 juillet 2023 ci arène nationale muy première édition drapeau Abdoulaye Djigo di dox ci diggante Giro Seras ak Abou Ndiassé diggante parcelle ak jàmba gën combat bi nga xam ne moom la amateur yi di xaar combat spécial Karbala ak Fëgala bu Ngor première édition drapeau Wan Sow responsable politique ci Parcelles Assainies bébé rëg-rëg ak caatu Jolof drapeau Ifra borom Al Amin service Ouskara ak vite fait drapeau Moussa Niang di responsable politique gëm sa bopp armée 2 ak de écurie de lutte Sénégal di yóbba diggante Momo Ngom ak Ndeye Fatou Adama Diali ñu fas yéene wàcce stade bu dee supporter 2000 francs amateur 5000 francs bu dee loge officielle 10 francs bés baa diggante Giro Seras ak Abou Ndiassé lii ku ko tardé tardé lu rëy actualité lamb fan yii nan nga gisee gis nga Balla Gaye def na sorti gis nga Modou def na sorti gis nga euh, Eumeu Sène def na sorti nan nga gisee seen sorti yooyu ñoom ñett. waaw seetaan naa seen sorti yi mais man moom maa nekk nit koo xam ne man ñooñu maanaam man pour l'instant yi man man aw ma sax temps wu sax di seetaan ay VIP toog ni bés émission di ay daggetu TikTok rek laay gis. gars yi dagg ci Lo sortem bi nan nga ko déggee ak noo ko gisee. Modou non Modou Lo moom sorra mi li moo ko gisee moom maanaam lu toll ni titre roi des arènes maanaam ni mu waxee foofu pour man loolu xaaruñu ko woon si moom quoi lu toll ni roi des arènes waaw nga toog si télé xama rek di expliquer di wax di weddi di weddi loo xam te ne yow adduna bi yëpp yor seen i bët di leen xool. nan ah lu ñu weddi muy maanaam comme li fi xewoon rek conférence de presse bi ñu defoon xam nga def ay business ñoom ñeneen ñoom ñooy VIP yi xam nga. ma gis maanaam comme maanaam xam nga rek maanaam ni xam ne ni niñ fàttee seen mbër yu ndaw xam def seen i association yoo xamante ne association boo xamante ne nekkul association yu dë dëggu ku si mel ni Gris Bordeaux jiite ko association teg dil la waaw association lijjanti seen bopp la ñun xam nañ lépp nu mu demee waaw déggee ni lim ne euh, carrément mooy mbëri yi wax ñoom nañ fexe comme prouver am na ñu am gis nañ ñoom ñëpp ñoo waaw prouvé moom ñun ay xale la ñun ñu ngi suñu ginnaaw amaana buy wax loolu sax ay ay soq lay gaarawaal ak ay tafaambër ak affaire yooyu noonu man moo loolu mais ñun ñun ñun ay xale la ñun ñun ñun ñun ñun ñu ngi si yoon bi ñun ñu ngi si yoon ñun ay xale lañ. ah man da man si si ma jàpp man ñoo ñooñu lay wax dafa ko Bou Siteu moom kenn dootu ko présenté international waaw maanaam am na si mbër yoo xam sax dañuy wax sax mais mais am na si ñoo ay tapet la ñeme wuñ tudd sama tur taman ku ma siy wax sa tur laay jaar. yee mais booy def émission di wax mais dangay tudd tur mais di wax wax yoo xam kenn xamul koy waxal di wax si air bi rek si loo xam ne yow da ngaa war askan wi cuub sa drapeau waaw. sorte Eumeu Sène tamit gis naa ko maanaam comme lu ma laax rek moo loolu ku si nekk mu ngi génn dina am ñeneen sax ñuy génn naan dañuy jéem a wedde waaw te parce que comme lu ma la wax rek ñoom dañoo war askan wi war seen i mbër yi ndaw man lu ma si gën a métti muy ñoom lijjantiwuñ mbëri ndaw yi ñoom seen bopp rek. waaw yéen lañ fi nekkal mais bu fekkee loolu amoon na munoon ngeen a jël seen téléphone woote laaj lan la mais am na version yi dafa bari te li yi fokk loolu am c'est que ñoom dañoo yaakaar ñun ñun ñun ñun ñun ñi nga xam ne ñun ñooy booy ñoom dañoo jàpp ñun ñun nekk ñu ci lam wala ñoom dañoo jàpp ñun ay xale lañ rek ay ngaaxa lañ xamuñu lu xew ci dëkk bi te ñun ñu nekk ci làmb yàgg ci làmb 2016 ba léegi ma nekk ko ci làmb kam moo ma mën a naxati ci lam wala kam moo mën a def loo xam di sàkkatoo mbëri ndaw yi man am na si i ndaw yoo xam te ne man maay wax waxkat man maa seen ñoo xam te ne nii li leen metti ci làmb amul fu ñu leen ko waxalee mais Bou Siteu mooy nekk koo xam te ne képp ku wàcc yoon wala nga def loo xam te ne nii xam nga moo loolu am naa droit wax ko waxalaa leen ñeneen ñi waaw wax tamit si loo xam te ne pour ñenn ñi dégg ko gëstu si lamb ku si mel ni président amateur góor kii ku bees ki waaw kooku noonu maanaam dafa war a nekk koo xamante ne moom tam am na loo am na loo xamante ne dafa ko war a di dox si làmb dëgg la nag mooy président amateur yi mais waaw dafa maanaam affaire yi xam nga rek làmb léegi dafa bëri kumba am nday ak kumba amul nday dafa bëri ci làmb ji am ñoo xam dañoo mën di daw di làqatu si ginnaaw nit mais lan la mais ni da ngay ànd ak moom ci dëgg parce que arxuraanu karim waaw tañ bàyyi affaire kii mbër bu mag laak yooyu mbër bu mag bu juumee mais bu juumee dañ ko war a teg si yoon mbër bu mag saga mbër bu ndaw mooy juum gaa teg ko ci yoon normalement mbër bu mag bu defee lu mu warul def toujours nga koy def si biir làmb xam nga di sàkkatoo làmb ne da ngeen ubbi seen association yoo xamante ne xam nga amul leerul association boo xam Bou Siteu nekku si keneen ak keneen nekku si. yaa ci bëggut a nekk. wallaahi association boobu mooy loolu mais association boobu association boobu dëgguwul. mais association moom ñoom ponkal yooyu VIP ñoom ñoom dañ si ñoom ñoo si lijjanti seen bopp rek mais yow lan nga dégg association bi loo xamante ne defal na ko làmb wala defal na ko loo xamante ne. ku feebar ku ci am loolu amul am na ñu feebar fii nii association bi ñoom ñoom nañ pare ma indil leen ay mbër yu feebar. ñu ñu ñu ñu ñu génne xaalis bi nekk si association bi faj kii wee leen ko duñ la wax sax moyen bi si nekk. mais Bou Siteu li àdduna bi yëpp di laaj. ñu ne Bou Siteu ak Balla Gaye lan mooy seen gis nañu Bou Siteu fu mu doon toog Balla Gaye Balla ñu gis ni Bou day génn di clash Balla Gaye relation Bou Siteu lan mooy seen problème yi. non boo nee Bou Siteu di clash Balla Gaye sax loolu damay ree ba pare quoi. parce que loolu yaa ngi koy dégg. maa ngi koy dégg mais loolu du cadre clash sax parce que man man dama nekk ci làmb dama nekk ci làmb nekk xale. amul benn amul amul nit ku ma teg loxo du nit moo si mës a yëkkati ni mu buusita Siteu am maa ko jàppale si sa combat maanaam àdduna boo si nekkee di dox dafa jot maanaam. maanaam ni may màggee ci làmb xam nga 2016 ba léegi maa ngi ci làmb maanaam ni may màggee ci làmb xoolal 2016 ba 2023 ni may màggee ci làmb mais sama xel sama expérience noonu lay màggee ci làmb ci ci ci ni ma nekkee ci làmb xool ñi nga xam te nii maanaam xam nga waaw gis naa sama bopp si ñoom mooy loolu mais mais mais mooy loolu mais ay ay Balla Gaye di Balla de bu defee lu dul ko def ñoom ñëpp laay waxal. mais est-ce que waru ko ne ko ah mag kat dégg naa lii mu demee est woon yow nga wuyu sax ndax gis nañu yow waayam nga te boo ko wooyee dina la jël est-ce loolu. non Balla de sax man xam naa ne sax li may wax si moom li nga xamante ne ñoom loolu lañ def ma xam naa ne sax su seetaan day reetaan te xam naa ne bu si de mbëru international am naa droit waxaluma man xam naa ne sax moom bu may seetaan day reetaan rek man xam naa loolu te parce que Balla Gaye ku woo xam-xam nit ku baax la xam rek mais dafa jot ñoom buñ juumee dafa jot ñu wax ak ñoom pour ëllëg maanaam bu jeunesse bu soxlaa maanaam nañ jox nañ bàyyi jeunesse bi luñ moom waay xam rek dëkk bi gënoon na fi métti gisuñu benn mbër VIP bu génn wax te loolu nga leen meree man xoolal man yow xoolal rek man yow kam moom mën a compter sama émission yi nekk si àddu si si kii bi te ba dëkk bi avant dëkk bi di yëngu ba léegi man maa internet te parce que Bou Siteu ku ko xam-xam ne Bou Siteu nitu média la waaw yow nitu média ma damay xëy def ay quatre émissions te ñu bëri xamuñu lool noonu waaw te ñëpp may seetaan kon loolu moo lay wax ne Bou Siteu mbëru diaspora la mbëru àdduna la mbëru askan wi la mbëru jeunesse bi la ba pare jeunesse bi gis naa ne da jox nañ ma bopp kon man tamit. war naa delloo jeunesse bi li nga xam ne nii gis naa ni man jox nañ fépp fu ma dem man damay sonn man oto rek moo ma manqué ah. man fu ma dem yow xam nga sax lu ma la wax man fu ma dem nit ñi xam ma maanaam bouse de ah dinaa ko bëgg daal kon man fu mu méttee méttee méttee damay tourner gestu jeunesse du ma du ma cuub sama drapeau ndax ay alalu àdduna ay weccet. noo gisee fan yi polémique bi ama Balla Gaye génn def sorte na Lamine Golo du sama entraîneur sama xarit la ñu gis ne polémique boobu dafa commencé sax ñu Balla Gaye warul woon lool lool mais yow nan nga déggee loolu noo gisee. ko gisee rek muy maanaam xam nga yenn saa yi communication yenn saa yi di nga di ngay di ngay communiquer wax loo xam te ni sax soo paree toog seetaanaat émission bi di nga xam ne kat eh, ko man loolu daf may dal ci émission yenn saa damay def émission wax erreur boo xam après su ma koy seetaanaat. damay xam ni oh war waruma ko woon wax erreur la mais Balla Gaye de mais ku si nekk ak daal sa biir privé ak li ngay dund waaw ak li ngay dund ak li nga xam te ni moo nekk ci moom mu wax ko ñëpp xa kenn kenn xamul la moo tax mu wax loolu ñu bëri nga naan war wax la mais est-ce que la est-ce la moo li tax mu wax loolu noonu moom moo ko xam biir privé am la wa ku si nekk maanaam sa vie privée waaw non loolu moom pour man jaru polémique waaw waaw maanaam loolu gis-gisu bala gay 2 la ak li nga xam te moo nekk ci moom mu wax ko mu wax ko waaw maanaam yenn saa di nga wax loo xamante ni sax ñu naan ñii ñi waru woon wax le waru woon wax le te fekk ne xamoo leen la moo la la jàpp ci xolam moo tax mu wax loolu. Balla Gaye li wax ni euh, dara nekk. non man moom ni ma ko gisee noonu moom man jàpp ma daraa ngi ci quoi waaw jàpp ma parce que magum jëm wax waxam benn xale ndaw bu Siteu jigee xam nga di dindi waxam te yow xamoo la moo tax ak li nekk si xolam ba mu wax ko. yee gis nga jar na bàyyi xel. beneen mooy sa leader guy gi sa xar mi yow beneen mooy sa guy gi fane gis nañ ko moog Zarko ñu gis ne Zarko génn wax fii guy gi wax fii mais loolu nan nga ko gisee ñoom ñaar. waaw li ma ko gisee rek muy maanaam combat boobu dafa war a leeraat. waa jour guy gi sax maanaam dañoo war a ko quoi guy gi daf ko war a mooy revanche bëri woon nañ guy gi daan ko. waaw Zarko instant yi ku xam Zarko xam ne instant yi mu ngi si ay dynamique. mu si ay dynamique instant moo guy yi combat bu leer naññ la waaw xanaa xam Zarko Diène Kairé sax war woon taxaw Zarko guy gi moo waroon taxaw man moom laa bëggoon mais xoolal Zarko instant ni nii lancé bu mu nekk nii rek tegale ay dynamique de victoire xam nga nekk jàmbaar nekk gaynde te guy gi ko xam guy gi ñoom ñaar bëre woon nañ guy gi daan ko mais combat boobu nañ ko leeralaat mu xool dina xam ne maanaam toog Grand Yoff di wax rek moo loolu affaire yi du ay wax waaw guddi guddi yi guy gi képp ku muy bëral di nga xam ne guy gi am na combat bu mag a mag a mag. Hmm? mu ne ko. non seetaan naa ko mu ne ko guy gi bàyyam la affaire yooyu mais xam nga maanaam rek luy jaay combat bi la ba pare bëgg na guy gi siisu wa mer ba jël ko te parce que loolu noonu rek wax la sa baay laa muy kon day day mel ni sax moo mon guy gi. wala xam nga moom li mu def si làmb guy gi def ko si làmb te ku xam guy gi xam ne guy gi ndaanaan la te am data dafa am lu mu def si làmb dëgg la amaana tolof tolof moo ñëw nii rek mais Zarko bu jëloon guy gi nii nii nii di nga gis beneen guy gi bu bokkul ak yi nga gis ta parce que maanaam gars yi ñoo parewaat pour nekkaat si ginnaawam. waaw ku si mel waaw. mais xoolal guy gi rek combat yi passé yi nii boobu xam nga ñu ne moom neexoowuñ man moom safara njambaan xam nga et cetera et cetera mais imagine toi tey ñooñu ñooñu ñëpp ñëwaat ci ginnaawam guy gi instant yi ku muy day am problème ah te parce que ay jàmbaar ngay gis ci ginnaawam ay jàmbaar ngay gis ci kanamam. yee. su may jeexalee mooy wax dëgg yàlla nag sa doomu nday non Laurent jig nga ko quoi Laurent jig ko. Laurent war a dem MMA Lyon France xam nga bu dee bu Siteu affaire yëpp tijji mais bu Siteu ba tey gars yi li ñuy laaj mooy. ani passeport a buusite buusite lan moo tax demul MMA mais Laurent moom instant bi war waaw mais xam rek loolu moom dañ koy rafetlu te parce buusite ñëw fekk ku bëre benn combat nga ñëw jël ko may ko loxo kon kon man lii moo lay wan rek kon man produit laa man produit laa waaw boo boo xoolee li ma la wax rek ku bëre benn combat nga ñëw may ko loxo mu bëre tey waaw waaw Lyon bon loolu mais xoolal lu ma la wax rek mais tey loolu noonu kon kon buusite am na lu mu liggéey mais Bou Siteu xool lu ma la am na lu mu liggéey ci làmb tey jii nii maa ngi maa ngi sauvé honneur maa ngi sauvé honneur tey jii nii tey jii su boo da day leer ne tey jii nii yu bari day changé kon tey loolu noonu Bou Siteu moo ko indi kon loolu maanaam dafa neex waaw loolu lu ferre la te loolu lu ma neex la yee loolu lu ma neex la kontaan naa si bu baax comme lu ma la wax gu bari bëri benn combat nga ñëw may ko loxo ba tey tey xam nga yeneen ak yeneen affaire yi leer feeñ àdduna xam ko. kon tey loolu dafa neex. waaw porte bonheur la moom foofu noonu laa lay waxee. a dolli de. non mooy loolu na nekk si yoonam rek. na nekk si yoonam xam nga xam ne affaire yi maanaam làmb nii la waaw affaire yi man xam nga tey jii nii bëri nañ mais si kanam tuuti si kanam tuuti ah. waaw day leen tey jii nii revanche bi su ma ko suñ ko su ko gars tëgg du bañ mais du maanaam du bañ sax. dina xam ne kii kat. du bañ tapalaka dina xam ne Bou Siteu mii kat ba may jël benn combat laa bëre woon. war a jox la revanche. waaw non loolu waa mais si kanam. Ah, si kanam ku woon jox la combat MMA yi est que pare nga tamit pour dem xeex dugg ci kaaf. non yow Bou Siteu ku wax xam-xam ne Bou Siteu man man dama ñeme man MMA rek laay def. Hmm. non man MMA rek laay def. parce que alxuraanu kanam xeexu MMA rek laa bëgg. Hmm. te su ma demoon MMA nga génn ci Bou Siteu. su ma duggoon biir MMA bañ tëj casier. tubaab bi ay tapper lañ barki si boo xàccee ñu gëm ma ah, te Boucher de koo xam xam ne bu ma jàppee tubaab moom dama lay dóor ba nga yuux mais loolu dafa garaaw mais moo loolu maanaam nit ku ñuul que borom karawu ñuul ñàkkul dara ñun ay New York lañ teg suñu bët. yee te sa papier yi ba tey gars yi ba gars yi léegi bàyyi nañ la wala bàyyiwuñu bu gars yi dañ yaakaar <laughs> sa papier. waaw xam rek moo loolu mais instant yi nice billaahi bàyyi nañ la wala non instant yi moom cat moom wàññeeku na. Ah. ba pare xam rek buusi te léegi damaa nekk nit koo xam te léegi damay nëbbatu. Oh, yee kon daal papier yeeg yëpp instant bi da ngay nëbbatu. damay yee parce que ah. alxuraan <laughs> yaa ma gën a xam. amaan mbégte contentement pour yéen doon suivre sur Kewel Info ñu dawaloon ki nga xam te ne moom mooy Bou égal à lui mu nekk koo xamante ni nee naa ku feebar sax wala nga am stress soo ko seetaanee da ngay bëgg mu nekk koo xamante du changé ah il est tellement naturel ba yow doo sax comprendre yàlla xam na ko di ko ñaanale rek yàlla may ko gudd fan ak wér kon li muy wax rek borom gu ñuul ñàkkul dara di ko suma sëriñ di waxee rek nee na moom àdduna moom luy sa wërsëg di nga ko lekk muy lu néew ak lu bare ku sa wërsëg jeex rek nga faatoo kon donc yàlla na la yàlla defal jàmma ah, lépp lu ñëw rek mu doon sa wërsëg ci barke yonent bi di la wax ndax fi ma teg xam naa ko yalla xam na ko yow suma partenaire nga yàlla xam lii rek moo maanaam ñu bëri damay gis ñoo xam ne dinaa ma Bou Siteu wàññil Sidi wàññil Sidi xam nga mais yow gars yi di la invité est ce ñu ngi lay fay mais yéen lii nii amoo leen si dara ba pare yow maa yow sekk nañ ay yenn lien yoo xamante ne xam nga moo loolu mënu ma la bañal émission keneen ak keneen ma ma dund ko sax maanaam journaliste yëpp jàmm ji a xama ba pare gis naa tamit fi ngeen ma teg moo tax nag ñii ñi xam te ne ñooy wax ñoom ñoom moom lii nii xam nga rek maanaam yenn lien yu ñuy sekk mooy waral man dama war man Bou Siteu nitu média la maanaam na ñi nga xam loolu xam ne Bou Siteu chaque jour moo loolu di da si da nga koy gis si média yi te loolu la ñuy ñaan yàlla tamit xam nga chaque jour ngay gis nit muy nekk si jàmm xam waa loolu maanaam beneen affaire la daal. en nit ku baax. ndeysaan non yow borom baax nga yow moom kenn du yow ndeysaan yow dundal rek yow moom jàmm si yow ko di bëgg tamit sa caméraman moom borom baax la quoi Adama. waaw di ko sant gis nga moom borom baax la. dégg naa tamit da ngaa woor tey taxawaay Arafat man léegi laa lekk mu rog kii bër. non mu rog bu ñu nee suba la tabaski mooy araf mooy woor bi man boobu laa xam waaw. mais xamoo bu bi. non bi tey. taxawaay Arafat la de. si bu non pour man bu ñu suba la tabaski la. Ah. barke Alxuraan non boobu moom duma ma ko woor non du ko woor. parce ah. que alxuraan xam nga rek. bàyyi ma xel sax ay kiiw arafa non koor moom ñeme naa wax xam nga rek. doo fay koor doo woor. doo woor non xam nga Bou Siteu moo nekk nit koo xam maanaam yàlla toppee wu ma yooyu man yàlla toppee wu ma yooyu de. ñeneen ñu toppee loolu mais man. yàlla toppee ma loolu da parce que yàlla xam na ni xale bii yat mu ngi bégal ay doomu aadama mu ngi bégal ay net ñuy tëdd si hôpital xam nga mu ngi bégal ñoo xam te ni tey jii nii ñoo xam mooy loolu dañuy seetaan bu set tey jii nii fàtte yu bëri yoo xam te ne xam mu ngi doon gàncax xol te tey loolu sant yàlla la daal waaw sante yàlla la di bégee gaa yëpp nag waaw di bégee suma papa Lat Diop maa ngi koy sant bu baax a baax a baax waaw di bégee autorité yu jàppale bu sita Basirou Ka maa ngi koy sant bu baax di sant Ifa ñoom ñu ngi ba Tiwaan Pël xam nga ñàgg xam nga ku si mel ni Mor maa ngi koy nuyu borom oto yi di nuyu aji ndumbe xam nga suma mama Xadi Balla Gaye maa ngi koy sant bu baax maanaam ñoom ay nitu ay nit ñu baax lañ quoi ba ay nitu social lañ waaw di ko sant bu baax di bëggee tamit ku si mel ni sama président bi président waaw Abdou Aziz Abdou Aziz Diouf maa ngi koy sant bu baax a baax a baax nit ku baax la waaw moom di ko ñaanal jàmm quoi di ko ñaanal mu di bëggee tamit Moussa Moussa maa ngi koy nuyu bu baax gars yi nekk foofu mafia bi xam nga maanaam ñi fa nekk di ma bëggee biir asalam dafa bëri waaw kon maa ngi di sant bu baax a baax a baax di bëggee Ousmane bu baax waaw Ousmane Abdou Aziz Diouf maa ngi koy sant bu baax di nuy jabaram xam nga di nuyu doomam bi Fallou waaw ñun ñëpp maa ngi di sant bu baax di nuyu tamit gouverneur xam nga Moustapha Diop Messi Moustapha Diop Messi xam nga maa ngi koy sant bu baax moom tamit nit ku baax la ko waa te gis nañ social yi muy def biir asalam dëgg la géejawaay fii laa dëkk mais li muy def yu baax yu muy def ah, toog fi muy ñëw bu fii di ma fekk ah, nit ku baax la barki yàlla waaw waa Bou Siteu moom ko xam ne Bou Siteu international la ñu yaakaar ne joueur la non xam rek ah, yee non non instant yi moom style basketteur laay ndurool instant yi waaw sur le basketteur. en gis nga noonu la yaa xam ma rek. bii xanaa dem boo yomb yóbbaale. waaw non bii moom yow moom loo bëgg waxal yow moom suma waay nga. sponsor leader yi. waaw sponsor leader kii kii ku si mel ne Bamba moo si génn Bamba bu Moussa Gassama. Uh-huh. nekk Massa Ndiaye moom mu amee émission damay ñëw rek mu jox ma verre ma sol. Uh-huh. waaw di ko sant bu baax kii moom ma ko jox démb. Ah. ku si mel borom Malika wóos borom Malika waaw boole waa na wax gis nga te ah, démb rek démb rek laa na ko farma ja dafa may seet si mun a ma am yóbbul lii solo lii rek nga ak tàngaay bi ak affaire yi xam nga rek maanaam tàngaay bi rek mooy waral ñu def yii mais mais li koy dundee rek muy maanaam toog rek di bégee gars yi xam nga mooy di nuyu waa diaspora bi ku si Bamba borom jàmm gan ñoom Lamine ñoom ñëpp maa ngi waa Lyon waaw sa mafia Lyon maa ngi nuyu Baye Fall yëpp waaw ñoom Bamba ñoom ñëpp. Bamba sax moom ma ko annoncé na ma saa day bëre fi MMA quoi. moo loolu balaa boobu sax yow dégg naa mën mais pare naa man instant yi pare naa pour bëre MMA. ak Beuz. waaw Eric ak ñoom Beuz ñoom ñëpp ñoom ku leen xam-xam ne ñoom ñoom dañuy suqali làmb te tey làmb bu eggee fenn fii ku xam perpé fii xam ne perpé fii nii perpé fii instant yi dafa dafa gën a lancer làmb dafa gën a ubbi làmb damay gis sax am ñuy taxaw naan ay perpé fii bi affaire yooyu di jéem a saltel perper fii dafa nekk luy dundal làmb di wax ne nag ñiy def perper fii nañ gën a jàpp bu leen bàyyi waaw di wax xam ne ñu ngi seen ginnaaw ñoom bës ak gaa yëpp waaw Ibrahima Faye bës pare naa nag pour bëre si MMA yi yee pare naa waaw ak Eris Fass bi ñoom ñëpp ah. waaw bu sita nag pare na pour dem MMA bëre waaw xaw a dugg dox si suufu New York bi ah. dox si suufu Lyon bi dugg si kaas bi gars yi tëj ko ma war a dox si suufu kaas bi war a jàkkaaroo tubaab bi dóor leen dóor yi métti naa si dóor tubaab bu muy yuux su ma duggee MMA ngeen génn ci man bu leen ñaan yàlla sax ma ñëw MMA ah moo man waaye yow yàlla baax na xam rek yàlla baax na quoi damay bañ xam rek cat dama topp yaa ma gën a di la bu baax a baax a baax di bëggee waa diaspora bi gaa yëpp nag waaw mafia bi ñëpp waaw maa ngi bëggee képp kuy bëggee bu sita rek maa lay bëggee bu baax a baax a baax di bëggee jàmbaar yeeg xam nga waaw sama gars yi nekk foofu ñoom ñëpp maa ngi bu baax di nuy waa parcelle xam nga sama mafia bi fan sa club beeg gars yi xam nga ñuy bégee Bou Siteu waa Yoff Cambérène ba Wokam Petit Laay maa ngi koy sant bu baax di bégee Mocaam Séeré Ajara ñoom ñu ngi ba London di bégee waa London diaspora bi foo lim waa Espagne xam nga gars yi maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuy tamit Tafa Fall waaw Tafa Fall maa ngi koy sant bu baax moom mu ba si Europe bi Paris waaw di nuyu Papi tamit nekk nit ku baax nekk France Papi borom papi maa ngi koy nuyu bu baax di bëggee tey Mansour borom asalem waaw ñoom ñëpp ay nit ñu baax te dañuy dooleel Bou Siteu waa di bëggee gars yi di bëggee sama waa ko si xam nga ñoom aara gars yi sama booy yi xam yaa ma gën a xam moo la caméra jëlaale ma sama booy yi xam nga rek ay ñoom galas ak gars yi mooy loolu waaw ñoom faal gars yi booy nekk seeraas ñoom ñëpp waaw ñoom sil ak sama booy yi mooy loolu pro yi xam nga di bëggee tamit xam nga Pape Bafou Cissé Pape Bafou Cissé borom Pikine maa ngi koy bu baax suma papa di bëggee Codé yaali borom nag yi xam ma mafia bi ñoom ñëpp maa ngi nuyu bu baax a baax a baax mafia Dominique bi ñoom ñëpp maa ngi sant bu baax a baax a baax kontaan naa trop. sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. ci si kanam sama place laa jëlaat si làmb te incha allah le huit. xam ne damay jëlaat sama place si làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi pour moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti leneen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul la loo yem ma ba jël ma loolu dina dëggal boom rek waaye mi foofu làmb su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allahu rabbi te làmb ju dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëre man ak moom